mbokk yi gannaaw bi ñu sante borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ci ñooñam yeeg saxaaba yi ak taabiin yi ak taabiu taabii yi ak awliyaullahi billahi ñu ngi leen ni dina ziar ñëw ci suñu dars bu mujj ci téere bi nga xam ne mooy taayatu suluk ila malikul muluk xam ni xaw na yàgg tuuti mu jum na ñeenti at waaye noonu la ko yàlla dogale يلا دوغال نتا ان شاء الله تعالى ني ورا جانغ سوني دارس بو موجي تي تيري بي ني فاتلي ني نيغي تامبالي نيغي جيلون تي دارس بالي تولون تي طالب بيغا خامتيني دا فاي توپ سيرين نيك تي والو تربيام و توپي ديغال ييغا خامتيني موم لاكو اي برينسيپ تصوفي دي جانغال دنا دم با يشاهد اقمارا بها وعرائسا ويشرب من كاس الهنا wal masarrati mooy dina dem ba janook ay ay ay ay weer weer yooyu nag lim ci namm mooy day nekk ci aljanna rek aljanna googu it du aljanna gi nga xam ne mooy la xam ëllëg mooy yegg gi mu yegg ci yàlla day yegg ci yàlla daal ak ay seet ay feet yoo xam ni dana ko dund ci boppam di naan di naan tamit ci kaas yi xam ne kaasu ndokkeel la kaasu mbégte la léegi nag waxoon nañu hunaakal kiraamul manazil naaziluna min al ula manazila afraadi maahida saadatin foofu nga xamante ne ñu tedd ña ñu mag ñi nga xam nit ñu mat ñi ñoom ñooy wàcc foofu ci barab yu kawe yooyu ci ay barab yu kawe mooy ay barab yoo xamante ni ñaan ñi la ko yàlla jagleel ci gaay yu nga xam ne mooy sang yi mu doon seen miinuwaay mooy wàccuwaay ci xadaratul xadara xadara yàlla ba moo tax mu ne bi xaytul baha wal uns foofu lañ war a tàmbalee tey بالقدس ينجلي على السر جهرا في جمالي وبهجة بحيث بها فصفو خمني تارلا طالب taar دفعي لن bi bu defee liñ ko sant li ko téere bi jàngal ko toppee dañ ko tàmbale woon ci dars yi mu jeew fi ñu toll su ko lépp lay doon léppam léppam lay doon day doon baha al baha ci wàllum taar ci wàllu yàlla wala unsu ak wéttaliko day wéttaliko yàlla ci xolam ci ruuxam ci jëm-jëmmam ci léppam moo tax mu ne bil qudsi ci sellange boo xam ne yan jëli bu feeñ lay doon day wéttalikoo ci sellange am xol bu laab bu sell bu set boo xam ni yàlla rek lay bëggee am ko ala sirri ci lu nëbb waaye tamit jëxëran ak lu feeñ fii jamalin ci taar taaru jamaalul ilahi mooy taar boo xam ne taaru yàlla la day ànd ak taaru yàlla wa bax jatin ak melokaan wu xam nga melo wu ak taaru jamaalul ilahi bokkul nit yàlla dina ko bind mu doon ko rafet waaye jamaalul ilahi kooku euh, jam yàlla moo koy def ci nit nga xam day dem ba moom taarug yàlla lay am nit ñi dañ koy gis sopp ko bëgg ko lool dégg nga tabaarakallah bu màggetoon ak lu ko mën a dalit du tee soxeel boobu day des ci ñoom loolu yàlla defal nit yàlla yi وتح وحنا وحيث كمال الذات بالذات واحد تغانت به الأكوان عن كل وجهة وحيث سايبوها من تني كمال الذات ما تجمج ما تجمج بالذات التجمع يلقى واحد دون بين بقد بقوا بانك تغانت به الأكوان من ريب دنكوي دنكوي ويل fu mu dem dañ koy dañ koy dañ koy màggal day foor ci mbindeef yi yàlla yi an kulli wajhatin ci bépp jubluwaay kooku nag mooy fa moo li ñu tuddee fardul jaamia waaw boo déggee boo xoolee baatu kamalu zaati bi zaati bi kamalu zaati bi zaati mooy koo xamante ni masalan waxidun maanaam koo xamante ni mooy fardun jaamiun li jamici awsaafi lkamal mooy nit koo xamante ni dafa maanaam nit la koo xamante ni dafa dajale mbooleem li nga xamante ni mooy melokaanuk mat melokaan li ñuy tuddee insul insaanul kaamil melokaanuk mat yëpp yàlla def koo dajale ci moom ci wàllu yàlla nag subhaanahu wa taala kooku mooy euh, kamaalu zaati bi zaati yëpp nag waaxid doon benn ci moom bu ko defee taxaanat bihi l akwaanu an kulli wajhatin bu ko defee monde kaw nu yëpp maanaam planète yi yëpp dañ koy way dañ koy way turam bi fo dem dañ koy xam wala tuddee faru jami moy moy moy ko tok ci maqam qubaniya yegg ci barab bo nga xamanteni pla planète bi fo dem planète bo dem xam nañ ko xam nañ turam xam nañ moy kan waaw hakada kooku yalla def ko koy defal kooku nak du du chaxan de du waxtaane waxti waxi mbedd de waaw téré bi moko jangalé rek mo tax ñu tuddu ko way xamuñ ci dara nak mu ngoog mu ko yalla def ko koy defal bu toppee ci ci yi nga xamante ne mooy amaakin yi nga xam ne jàngale woon nañ ko yi du liggéey benn fan du liggéey ñaari fan lu liggéey ñetti fan léeg-léeg nit dem ba yegg ca sax fa mu ca yeggee day dee fa lay faatu na benn nit yàlla boo xam ne jaamono yàlla ba yegg ci ba fam ko maanaam barab foogaay fam ko fekkoon foofu la toog naan attanuma ko attanuma ko attanuma ko ba faato kon du caaxaan kii maqam bu kawee kawe kawe kawe kawe la te ki nga xamante ni moo fi ne rek ki ne ci toog toog bi defe na sax mu dund ci at wala ay at loolu moom yombul ngoog hmm, am nañu ko yàlla di defal nag ci jaama mi Sénégal na ñu defal nañu xut bu zamaan fii rek feeñ loolu moom ñàkk xam yàlla moo ko waral léegi nag mu ne wa xaytu lbaqa baada alfana li salikin azala xijaabal ayni min gayri nuqtatin حيث ساي بو خامتاني البقاء ني تودي بقاء ني واخ لان موي بقاء بقاء موي ديس سي يالا بعد الفناء جيناو جيخ سي يالا آه، ساي بو خامتاني امنا لسالك نيال كي سوب تي يونو يالا كوكو نا خامني بابا نا ازال داي دنج حجاب العين ليغا خامني موي كيرا يي دوخون تي ديغنتيام تي اي بتام من غير نقطه تي دودول بن تومب مانام ليغا خامني دا فا جامو يالا جامو يالا با ييغ مرحلة الفناء بوجي فا برام فنا بنيك تي كوكا يالا دي دين بولم كي راي باري داف كوي غيس نيتي دنج كو غيس لول يالا داف كوي ديفال فنا اميلان فنا اميكا خمنتني يفني عن اوصافه البشريه ويشاهد اضمحلالا ما دون الحق بالكليه noonu lañ koy jànge maanaam mooy koo xamante ni dafa jeex ci mboolem dafa set ci mboolem melokaanu doomu aadama da cee set daf cee set ci mboolem melokaanu doomu aadama waaye nag yeggul nag yeggul ci yor melokaanu yàlla maanaam jikko jikko yàlla yeggagul foofa maanaam ki nga xam ne jaam bi nga xam ne set na ci mboolem melokaanu doomu aadama fa jeex ci yàlla ba lépp loo xam ne lu xeetoog bachariya defatu ko kooku def na lu ñuy tuddee fanna léegi nag lan mooy baqa baqa nag mooy de jóge na ci fanna wala dem ci baqa mooy ñaareel bi mooy nag moom bi mu jógee foofu dafa mujjee des ci di am maanaam li nga xamante ni mooy mbooleem melokaan yi nga xam ne mooy melokaanu yàlla subhanahu wa loolu mooy marxalatul baqa loolu mooy diggante fanna ak baqa kon daal fanna mooy jeex ci mboolem melokaanu البشرية آه، يحمي خامي كادور نيت لا انسانيه لا دال دي ديم بو جوغي بقا نك موي ديس تي ليغا خاني موي ميلوكانو ميلو ميلوكانو يالا سبحانه وتعالى موي دي صلى الله عليه وسلم نان تخلقوا باخلاق الله يعني تخلقوا باوصاف باوصافه التي تليق للبشر من الصفح والحلم هكذا موي نين نين جيكو جيكو يالا موي نين ميلوكانو melokaanu yàlla yi nga xamante ni dafa maanaam dafa yell ci doomu aadama ci ci lu ci wàllu baale ak lewet ak jéggale ak jéllale dégg nga ak bañ a topp nit ñi bañ a defante bañ a xel nit ñi yooyu yëpp euh, ci melokaanu yàlla la subhanahu wa taala kooku nag bu bu yeggee foofu nag jóge na ci fannaa nag dem ci li nga xam ne mo tuddee بقى ما بو ييغي نك تي بو جيغي ديم تي بقى نك يالا دي ديني مبولم تي راي خاني موي لي بار وون تي بتام با مونول وون غيس سيكري يو خاني موي ديم تي وال علم الغيب فريفه من يالا من نكو ماي سام ديم باي تك بتام تي لوح المحفوظ يعني فولا يالا دي دوغالي جي خام لكن من وإن لم يكن شيخ يريه شخوصها ويدنيه من أم القرى ومنيته فليس له من عمره غير رمسه وعيشته فينا آه، وعيشته فينا كعيش البهيمة لكن وإن لم يكن ونيب أمل لك طالب معهم في يقفه وإن لم يكن بأمل شيخ سرين وخم يريه دانوكوان شخوص شخوصها معناه أي أي ملوم أي جفم أي أي أي خمني موي أي أي كوي تاردل يشاجو بقدر في آه، ويدنيه ديكو جعل من أم القرآن يا خمنتني موي نيدكية نيدكية موي فن موي مكة أكلمي ساكو أنا نبغى هري موي طالب أمور سري فليس له من عمره كوكو دام تدندم غير رمسه لرجل جمم جيغا خمنتني دا أنا كنيو بي دخلا دا فمني نيو بي دخلا وعيشته دندم فينا تنين موي لان موي أهل الحقيقة دي كعيش البهيمة دا فمني دندق بهيمة أنا مكي جامي الله تأمور سري دا فمني تكو يخمني mom néew buy dox la rek comme dund dund bi da melni dund bayima ma rek la bëgg wax bu ko defé mom wayu du'a laqitan ayna halla muattala wa in kaana daa cilmin ka zawjin aqimatin daciya maa saadaati fi kulli mawtinin kada naqaluuhu julla ahli lxaqiqati léegi nag mu ne nag wa yudaa laqitan dañ koy woowee laqit bu boobaa ki nga xam ne day jaamu yàlla te amul sëriñ wala borom xam-xam wala yu demee noonu ñoom tënkuwul ci tàllu tarbiya ak yooyu laqit mooy kan mooy koo xam ne daa xëy na cëpp mooy koo xam ne amul papa ko dee dana ay xal la fan la wàccee muattalan ba ne cëpp moom fan la jaar fu ko defee ko loolu lañ koy jàppee maanaam du doon ku ñu reconnaître lay doon daal te ne wa in kaana daa ilmin bu dee borom xam la koo xam borom xam-xam la amul ka zawjin aqimatin dafa mel ni jëkkër joo xam ni manul am doom maanaam dafa dafa li naan jigéen ju jaasir mun a jëkkër noonu la mel tamit góor goo xam ne manul am doom loolu mooy lan mooy xam-xamam booba mënu caa defar mënu ci defar kenn loolu la bëgg a wax rek bu defee daaya maa saadaati moom dañ koy bàyyi walees muy ànd ak ñi nga xamante ne ñooy sang yi fi kulli mawtin mawtinin kada naqaluhu julla ahli alxaqiqati nee noonu lañ ko tuxalee ci ñi nga xamni ñoo ñi gëna bari ci nga xamni moy ahlul haqiqati wa ayyamuhu tamdi bu ko defé ay fanam di dem wa a'maluhu ay jëfam di dem biha biha ay fiha bila wafqi shar'in ci dulul dul dëppoog sharia fi umuri sharia di ci mbiru sharia lo wax mo ni sharia way leeg leg du xam deug deug haqiqatu sharia moy lan moo tax mu ne wa hada alladi fa muy jeexalee nag wa hada alladi qad yassara allahu nazmahu على أحمد المشهور بين الخليفة أو بين الخليقة من وهذا لي الذي مويل يخمي قد يسر الله نظمه يلا ينبل لنا بجمانكو بند نسكو ويكو على أحمد المشهور كي أحمد من يخمي أحمد الشرنوبي بين الخليقة كي ديجان من دي بوالده عثمان كي باي من يخمي موي عثمان مربان ومن شان كي خاني موكو ير جسوس وايم جنگل بحانات شرنوبي كي place yi nga xam ne mooy place Charnoub yooyu nga xam ne marché yaag jaayukaay yaag ya ca aju bi ardil bu xayra ci dëkk euh, suuf bu ñuy wax bu xayra foofu bokk na ci cosaanam cosaanam nag xaw na gudd buñ ko doon lim maamam daanaka xaw na dem ba mat téeméer ko defee ñu xam ne rek mooy Ahmad bi mooy ki nga xamante ne moom moo bind téere bi nekkoon ca Égypte loolu nag mooy li nga xam ne mooy téere taiyatu suluk bu ko defee mu ne wa arju min allahi maa ngi yaakaar ci yàlla الكريم المتدم أه، قهوله وستر عيوب فيه طمة عمة يلا مي خمنتني موي كتد أنا كارتي يلا قبوله أجنغم وستر عيوب أك أه، مانام أك ستران بولم عيب فيه تيربي طمت همني يا خمنتني فيسنا أنا أنا نطنا عيبي نطنا تي موم كون موم تي بابام Ahmad Chernoby wa amat te matale maanaam fépp loo fépp foo ko làmbee rek di nga daj daj ay ayibam yal na yàlla nangul ko te far far ci mboolem ay ayibam wa yanfauna yal nañu jëriñ bil ilmi ci xam-xam summa yuinuna topp yan topp mu dimbali ñu bi tawfiqihi ci dëppaleem ci kulli waqtin wa xawatin ci bépp waxtu ak bépp bépp gendeeku maanaam bépp cers daal mu teg ci ne waaye jaxle ixlaas yi ilayhi waaye jaxle tama def ixlaas yi ilayhi la ca sellal mu xaqaqan di lu ñu dëgg nga xam ne lu lu lu dëggu la te nangu ko waaye raxamu shay bi tamu j tamu yërëm sama e, bejjaaw bi maanaam koy gën a fekk nekk na mag fii chattaani ci sama sori wa xurbati ak sama tumuranke yal na ma ko yàlla jégal waaw loolu defe naa day mottali téere bi la rek mu teg ci na woyu duro janaat mu boole ñu fii silki qawmin ci eh, ci maanaam ci caquk nit ñi nga xam ne ci càllaleeg nit ñi nga xam ne ahabbahum da leen bëgg yal nañ ci boole wa wa wa radu raduhu gërëm ko wa ardaahum gërëm leen bi xusni maziyatin ci rafetuk ci rafetuk jagle maanaam yal nañ ci yàlla boole ñi nga xam ne yàlla mooy radiallahu anhum wa anhu yàlla da leen ñu gërëm kontaan ci yàlla wa yarzuqna wal muslimina bi asrihim yaqinan yaqinan kulla shakkin wa raybatin wa yarzuqna tamu wërsëgal ñu wal muslimina ak jullit yëpp bi asrihim ci mboolem jullit yaqinan ak bér yaqinan gu bér kulla shakkin ci lépp luy sikk luñ doon sikk sàkk yal nañ ci wërsëgal ak yaqin wa ribatin ak lépp loo xamante ne amoon nañ ci ak def-def la bi jaahi nabiyin def ko ci daraja yonante bi min sulalati adama adam nga xam ne mu ngi bokk ci njabootu euh, famille adama maanaam fa mu cosa fa mu jugee ci ci ci ci zahir min xal bi man ci ka nga xam ni mooy ka nga xam ni xalfahu ci gannaawam al amlaaku malaaka yi wala nga ne xalfahu ci gannaawam sallat lay julle al amlaaku malaaka yi wa rusul ak yonante yi ñoom ñëpp ci gannaawam dañuy julle ti julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam mu teg ci ne walawlaa hu moom bu dul woon yonent yi ma kaanat du nekk li aadama ñeel aadama suuratun ak melokaan wala taaba anhu llah te yàlla du ko baal min baadi aklatin ginnaaw ba mu lekkee garab googu moom sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nag fa fi fadlihi ci ngeneelam alqur'anu alqur'an jaa ci la dikkee mubayyanan di lu ñu béral wa naahiika doy na la qawlullahi waxu yàlla bi min gayri xilqatin ci ludul mbindeef doy na la ne waxu yàlla du mbindeef وخل وخو لا القران وايدو من ديف موتو من ومن قال كان قال مخلوق كيب كوني القران من ديف لا كلام الهنا وانا كيب من قال كيف كوني كلام الهنا وخو سوني بروم بي مخلوق من ديف لا وكو سيصلى ديس نكو سعيرا في سعور سعيد بو خامني وعدت نانكو للعصاتي ñeel ñi nga xam ne ñooy tooñkat ci loolu daan am ca jamono abbasiya moo tax mu di ko leeral kalaamun qadimun wane wax ju jëg jiitu jiitu la munazzalun nga xam ne ñu wàcc munzalun muy lu ñu wàcce xayru muxdathin nekkul lu sos bihi ci moom jaa jibrilu jibril moo ko indi ala xayru ummatin ci nga xam ne mooy ci gën ci xeet bi mooy xeet yëpp mooy sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne muhammadul mabuuthi mooy muhammad mi ñu yónni lil xalqi ñeel mbindeefi rahmatan ngir yërmande wa daawatuhu ak wooteem fii ma siwa allahi ak ci lu dul yàlla képp ku dul yàlla ammat matal na ko wala nga ne wa daawatuhu wooteem ammat matal na fii ma siwa ci képp ku dul yàlla bépp mbindeef rek wooteem gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ndax moom ndax illa rahmatan lil alamina mu ne alayhi yàlla nekk ci mu salaatul ilahi mahabati saba feek ngelaw ndeneer ngelaw lu neex lool man naa xa fépp mu ngi jooy mu ngi sab mu ngi jooy tayrun ak njanaaw picc wala ci kaw bankaas rikatin mu teg ca wa taslimu ak selmalam al azka boo xam ne aji sellal alayhi ci moom boo xam ne yaxfu dana ko matal wa ridwanuhu ak ngërmandem an alihi ci ñoñam والصحابة أن يخمن تنيوي صحابي وعن مالك عن قرمان نقو خمني لنكت إمام مالك والشافعي وأحمد أك إمام الشافعي أك إمام أحمد بن حنبل ونعمان أك أبو حميد عنيفة النعمان والثوري أك سفيان الثوري وباقي الأئمة أن يخمن يوي ندسي إمام يخمن مملا يخمن تيوالو دينك أهل السنة وعن قرمان نقو يكتير وعن منشي الأبيات كي مويك النصي كسوس بيتي من فكري جخلاتم ومن قراها كيب كو جانغ واقراها اك كوي ديغلو بفهم انت كومبراندور كو وفتنه اك خلوتي يوتي ومن اك كو هم قدر كمان ومن كيب كو خمن قد راى جسن عيبا عيب واصلحه تم دفرك يال نغير ما نيو دوغي تي ماميت واو كون ني كوي ديغلو رفنا وا سون جيني سون تاريخ تي لاني بوك ولو بخط بخط آه، حروف دونتني rëddu xaraf la sax boo xam ne leeru mu defar ko noonu ngir maa ne googu dugg ci moom aw bi taxyirin chaklatin wala soppiku maas boo xam ne nañ ko bindee noonu du noonu mu defaraat ko it kooku it yal na ngir maa ne googu it dugg ci moom it kon daal loolu mooy taiyatu suluk yal na yàlla defal dégg ak topp ak jëfe yàlla may ñu képp ku ko déglu rek yàlla nañ ko jëfandikoo jaay nabil mustapha sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla gën a gën a yaatal suñuy dégg-dégg ci diine ak ci yoonu tasawuf ba ñu gën ko mën a déglu gën ko mën a jàng gën ko mën a comprendre gën ko mën a appliquer ba nit ñi xam la mooy tasawuf ak lu ko tax a jóg na ko yàlla def bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul qawli hada wa astaghfirullah azim li wa lakum wassalaamu aleykum